Babacar Babacar jëlal Pathé ndeysaan Pathé ngi noonu mbëru askan wi la Pathé naka de askan wi yëpp moom la ñuy topp ndeysaan hey Pathé Baldé waaye ki muy saafi saafi diggante mag ki nga xam ne nii moom mooy dem si yàlla doogay ndeysaan te tëngeej yàlla na ko yàlla yërëm xaari ko àjjana moom saafi ndeysaan waaye loxo yu baax la yor moom saafi ak a soxor ak a mën a xeex eh, Safi Safi ak Pathé Baldé ndeysaan Pathé Baldé bu nekkee mbër wàcc na Falaye Baldé mooy waajuram bu góor ndeysaan yal ko yàlla yërëm xaari ko àjjana ndeysaan Ama Baldé rakam Zil Baldé ndeysaan mooy frère ndeysaan eh Pathé waay waay Pathé waay waay waay Pathé waay Pathé ngay juk Pathé ngay fecc Pathé Baldé ak Safi ndeysaan Pathé Baldé jóge Pikine Safi jóge fi nga xam ne moom dëkk ñaari gaar Pathé Baldé ba ñëwoon ginnaaw saafi la ñu jàkkaarloo ndeysaan ñoom ñaar tolloo nañ ci taxawaay waaye saafi xaw a yaram waaye ndax saafi moo ëpp doole dina leer ndeysaan arbitre baa ngay wax ak ñoom. en tout cas léegi eh bii combat bu saafi saafi ak Pathé Baldé. mais combat bi bu yàggee condition mën na fee feeñ. loolu leer na ndax ndax Pathé daa ndax Pathé daa gëj ah ah. yàgg na. ndeysaan ngem ngem bii la falaay doon nii la falaay doon ngem boo moom su nekkee mbër rek wàcc na waaw nekkee bërëke rek wàcc na waaw ndeysaan ey la ilaha illallah ar bismillah combat bi ndeysaan safi ey Pathé Pathé ngay dox ci koom Pathé ngay dox ci koom Pathé ngay dox ci koom ndeysaan Pathé ak Safi Pathé ak Safi la ilaha illallah Pathé Safi ña xeex ña xeex ñoom ñaar da ngay xeex la ilaha illallah ey ey Safi xeex rek lay def ak mën a xeex mbaa kaawa du am la ilaha illallah naa ko Pape Sarr dama ko jël ci buntu bi bi Safi di jooy oh lu muy jooy xol ba sori lu doon jooy non xol lu doon jooy ba wax na la ko dafa jooy ndeysaan ne paate mi ah. li def ci lam ah. tey bu demee koy def nii ndeysaan xool maa sori. hey Mbaye. Pape Sarr da jooy bi Pathé di dugg ci arène. ndeysaan ndeysaan dañoo yàgg. waaw Pape Sarr daa yàgg ak ñoom. daa yàgg ak ñoom. Pape Sarr daa yàgg ak waa Pikine. daa yàgg ak waa Pikine Pape Sarr daa yàgg ak waa Kër Farlay Balde. moo tax bu jooyee rek wàcc na. bu jooyee bii combat bu rëy. Pathé. ak Safi. ak Safi. kenn ku nekk yaa ngi ne teg. waaw waaw jox sa morom cër. mais Pathé dafa gëj ci bëre. yàgg na. après 22 ans d'absence. yàgg na jamono ji sama saar ñi est-ce que juddu nañ ndeysaan day mu retourné waat ndeysaan boo ma téyee micro di koy reporté ndax Pathé mën na jël place am si làmb non loolu loolu loolu loolu neexul ba neexul waaye gëmuma dematuma ko la ilaha illallah mais adversaire am bi différence de taille bi feeñ na ci de gis nga waa ji bi saafi waaw moom it lamba waxul dëgg waaw waaw waaye heure na ko fekk mu nekk feneen ci làmb ndeysaan diggante mag doo seet naa ko loxo yee baax ak a a doomu Thiès sax ndeysaan kaaw na cee am de saafi ak ki nga xam ne nii moom mooy Pathé Baldé kaaw mën na cee am de éy ndax Pathé ni muy xeexee baax na moo ma jaaxal de pare nañ la doon nga daanu jël na ko laay daaxi la laa jël na ko jàppante nañu Pathé ak saafi jàppante nañu jàppante nañ Pathé am na ngemb waaye saafi jàppul fen saafe ngay rokos saafe ngay rokos de saafe ngay dóor jëy bi combat éy ba xam nga ne am na am na ñu bëri ñu ñëw fii. combat bi moo fi indi combat bi leen fi indi. wallaay. combat bi moo leen fi indi. ndeysaan moo tax mbër day am ay feem. day am ay feem. mbër day am ay feeling. am ay slogan. hey. saafee ngay door. saafee ngay door de. saafee ngay door. saafee ngay door. saafee ngay door de. saafee ngay door. saafi ak paate. ay paate boo daanoon combat bi. hey ay bu ko daane. bu ko daane lu jëlee woon. hey saafi lum nar. Moussa Fidner Moussa Fidner jël na ko jël na tànk ba daf koy yëkkati wala jël na ko waaye Pathé waay waaye Pathé waay Pathé kottu na ko Pathé kottu na ko Pathé bañkat la de Pathé kottu na ko Pathé kott na ko de Pathé kottu na ko waaye day deñ Pathé ak Safi day deñ Pathé baru ko bëgg da ngay wax da ngay waxtaan jël na ko jël na ko daf koy yëkkati wala daan na ko laa ilaaha illallaah daf ko ëpp doole oh saafee ko man saafee ko man saafee ko man saafee ko man daf ko ëpp doole saafee ko man ndeysaan am nga mérite pate o oh, déggal xoola supporter yi xoola supporter yi moo daanu mel ni moo daan moo daanu mel ni moo daan ndeysaan moo daanu mel ni moo daan o oh, saafi saafi waay saafee daanu mel ni moo daan ndeysaan Safi waay ndeysaan Safi demal am nga mérite. ndeysaan lamb ju rëy. ndeysaan lamb ju doy waar ndeysaan. ndeysaan Fatick nga jooy waaye gis nga lamb. waaw mbër boo ñëwee ci lamb da ngay yokk. ndeysaan tey gisee tribune mu mel. am na ñu bëri ñu fi ñëw Safi ak ki nga xam ne moom mooy ñoon fi indi. wallaay moo leen fi indi moo tax mbër am ay feem. macha allah mbër dafa muy yokk ci lamb. macha allah am na mérite nag. ndax moo daanu mel ni moo daan xoolal dërëm bi ñëpp dañoo jóg ñu koy ñaanal bu baax a baax allahumma amin et eh, bu gënee fonk làmb dem entraîné ji mën naa am lu ne ci am mais promoteurs yi lan ngay wax ci promoteurs ak Pathé Baldé ndax Pathé Baldé war na toog bëre pa dafa ay feem waaw waaye xam nga fi làmb toll woon nag et eh, c'est normal mu bàyyi dem jàppale ki nga xam ne moom